baax a baax benn nga ni. Messi du dugg si <laughs> Messi. Messi yaa ngi tooñ xam naa day day defarwaat bu ñëwee comme que day defanteeg yow. <laughs> Messi Fall xam naa day defarwaat ba ba mu gën a baax daal. Ah. Messi Fall yow la ñuy xaar de. <laughs> ah Messi ndeysaan. kon Alima bàyyi ma delloo la kàddu gi rek nga xaar sa papa. d' accord ah wala ma bàyyi la nga dem ci. waaw waaw très bien. Ah. na ngeen def ah sama doom yaa nam naa la de sama doom. oh Mamadou Diop loolu na ngeen def. oh <laughs> benn ay na ngeen def. waay teel waay yaa ngi ni marié bu dugg si na nga def nam naa leen. laaw la cat marié. ma li lan la basa basa basa sànq marié buy dugg sànq marié buy buy dugg si mooy marié. jërëjëf doom jërëjëf nan la lew nan la lew moom nga doon nuyoo. nan la lew papa ku ko yeb da koo fekk muy nelaw. mooy eh, da nga sañ seen ak. Alima Ndione maa ngi woon ak waa Europe rek ñu téye. walaay Fall. ñoom Cheikh Ndoye ma nga Angers mooy kii kii ma nga Angers. Uh-huh. mooy international boobu nga xam ne lébu Ndoye boobu. Cheikh Ndoye Cheikh Ndoye. Lébu Ndooy Maal Yaram Ndooy nga xam ne mi nga dëkk Tëngéej ñoom Famara Diédhiou Famara Diédhiou yaayam mu ngi santu Ndooy moom waaw ñoom karambooj internationaux yi tey léegi nan doon wax kay eh. maag ñoom ñu ngi nii am vérifié léegi kan Cheikh Ndoye mhm. yàgg na ci de génneel nga xool Cheikh Ndoye moomu mujjee woo eh. Cheikh Ndoye ma nga angé waaw bon wax Cheikh Ndoye nee na na def très attention waaw ndax nee ci kaw yëpp maa ko moom. Ah, moo géej. <laughs> moo géej men. ma nga depuis États-Unis moo géej waaw. yi tàkk na. ku ñuy wax Fatou si moo koy toggal Fatou si. moo koy toggal moo moo duggee héritage ñoom ñoo ànd. guddi ak bëccëg. dëgg ñoom ñoo dem ba Las Vegas dugg ci jet privé bi. kàllamp yi di lekk mbaxal mu am ki ki ki mu tooy mu am ki ba Sofia wokkante daal di may wedd ne ma amul mi ngi nii nga dem yow yaa tàccu fii wokkuma daal di xool Sofi Gueye Sofi Gueye piis la téye ko dama ne Bakary génnal ma déedéet non non kii du moo géej de moo géej def na de négal de ñaar ñu sol lu weex noonu ana moo géej Modou Gueye héritage yi ngi ni surtout maam xaar Gueye eh, waaw waaw génneel Modou Gueye héritage ngi nii. léegi génneel ma non non kii du moo géej. des na ne na moo géej nii moo géej mi ngi naan ci ab kaas. moo géej a gis nga ko. mi ngi nii yëkkati non moo géej sama papa jox na la bopp. moo géej mi ngi nii moo géej a ngi nii. Ah. lekk nii mi mu tooy moo xam ne ku neex faat si. mu am suul ak waaw parce que borom Touba ba ma ko waxee Sophie Sophia Diatta daa wokku kii dafa wokk daa wokk Sophie Gueye Sophie Gueye wokk nu piisante. mi ngi nii ah, naa gisoo xaafisul alxuraan yi. waaw mais yow daal say nawle rek il faut nga jël vol rek. dem dem samay doom nanu. sama ay Sadio Mané Sadio Mané mi ngi dëkkoon Caaroy géej gi. Sadio Mané Caaroy géej gi la dëkkoon bëgg ma lool mi ngi doon football usine. koo xam nga télé laa toog ñemewu ma ko wax fii la dëkkoon. yow yaa gën a waaw ah. mais dama leen bëgg ak ñoom Karambooj ak ñoom Ismaïla Sarr nga ma doon nirooleel Ismaïla Sarr papaam maamam ñëpp ñëpp ay international waaw d'accord euh, Serigne Adama Mbacke surtout Serigne Mor Diarra waaw nee moom dalaa bëgg ah maam bul fàttee sama nijaay sëriñ Fall mi nga xam ne ah, Mamadou Fall Ndiand moo ko jur mhm. te Mamadou Fall Ndiand ah bay bayaar manel koddu ngay jur ko mi ngi tudd Mamor jaara mu nga tëdd ca Daaru Salaam moom mooy papa yi le trésorier de l'état bay bayaar manel koddu du ngay maam Ablaye Fall waaw tonton Serigne nan koy wax nag waaye Mamor Diarra la tudd Mamor depuis états uni Columbus maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Mamor Mamor maa ngi lay nuyu bu baax dégg nga noonu <laughs> ne ko maa ngi koy nuyu ne ko bëgg naa ko lool. waaw nee na bëgg na la di nuyu baax Cheikh Mouhamadul Abi Mbacke ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman. waaw oh. càmmiñam soxna Bali Muntaxa. Ah. waaw waaw. maa ngi koy nuyu bu baax. di gërëm réew mi yëpp ñawal na la ginnaaw gi sax dafa rafet. moo duggee héritage de la ginnaaw gi sax dafa rafet ginnaaw gi sax dafa rafet. Ah, lu mu see am xët la ci def. xët bi ci ginnaaw. Ah, moo duggee daa ah, la de waa Suisse Gold jox la tuuti moo duggee ñawal la lii daal ma ni la père li nga sol rafet na. waaw wala rafetul wala dara. moo duggee. waaye lii mu la ñawal. waaw gisuma ku la mës a ñawal lu mel nii. des na. nee na day xëble rek. sa ñaareel bi itam dalaa jàpp. waaw ah jàpp na la lool. bi sama mi gis na ko wala Eh, après kii bi mu kiwee mu ne. mu ne ba xam mu ne ba xam sa Fadiam gis na ko. laajoo ma dégg nga. ok benn maa ngi nuyu bu baax Tamsir. waa Tamsir soxna bu Sokone. di nuyu Poupette. kon xam nga ko Tamsir ah Tamsir suñu xarit bu yàgg la. ba Tamsir soxna. kon Mariane. waaw <laughs> ak Poupette waaw. nuyu doom ji bu baax a baax. bébé bébé na fi maa ngi koy nuyu bu baax a baax ñoom ñëpp. di leen gërëm ak Kempes mi ngi nekkoon SCIB bu jëm dañoo am ay gan kaay waaw yan gan la dañoo am ay gan Mouhamed dafa am ay gan il faut ñu dalal leen ñoom i tamit waaw wi ma waaw umpaañ lu mu wax ci yére bi e eh, sañ nga de ah Sophie nga toog xam waaw lu mu ci wax ah lu ma doon wax ci yére bi damaa taxaw mu di ma di ma pompe oh. gisoo ni may xel di ma pompe mi ngi nii dal nga ci nag taa da nga leer sax <laughs> non non ndekete yoo. ndekete yoo jigéen def ci ci biir. bàyyi ba oh, oh, déedéet non non Bougane Gueye Dany dafa am fu mu demee. Ah fan yi ci ñaay bi la dem Bougane Gueye Dany ba mu duggee ci ñaay bi ñooñu nga xam ne mooy monde rural bi nga xam ne ñu bari doon leen a bàyyi ginnaaw. dégg naa ba sunu jonni tey ab président musul dëgg tànkam ci ñaay boobu fi mu dëgg tànkam. ab mm. président ci président yi fi jot a jaar amul kenn ku fa mës a dëgg tànkam. nee nañu waa ñaay bi li ñuy bay lépp réew mi mën nañ cee dund ba mu des bañ ci fournir waa sous-région bi ah nu wane Bougane Gueye Dany di buddi carotte ak di roose mm. di roose kay la dem na fu neex njóobeen dem na lompul dem na nooto jama dem na jogo dem na tuubaa Ndiaye dem na daaru alfa te foofu ku fa jaar di romb ay ndóomóor ak ay mm. daaru xuddus doomu mais defe naa lii man ak yow moom ñoo ko doon waxtaane de ñoo ko doon waxtaane man ak yow ak Bougane ndekete dem na fa te xam nga ndóomar la sama yaay gane àdduna ndóomar googu ndóomar Jóob ndóomar Jóob genn waaw jël daaru gi nekk booru daaru xuddoos waaw waaw ah waa ndóomar maa ngi leen di nuyu sama way jur wu jigéen fa la bàyyi ko ñëw Ndakaaru dëgg la ay ci kontaan nañu bu baax ñëpp ñu albatiku nag tey la dem ndar wala démb la dem ndar ndekete yow doonoo fëgg seen gémmiñ woo ko ndaxte dafa am benn plateforme bu ne contre tey jii tey jii la Bougane demoon Ndar. tey la demoon Ndar. waaw ah, tey la président Bougane dem Ndar. ñu ne plateforme contre la délocalisation du stade maître Babacar Seye loolu noonu yuuxoo dafa dëkk Ndar nag war nañ koo pour mu wallu. doomu Ndar la du ah, Ndar la. <laughs> Mhm. du war a seetaan stade ba nu koy délocaliser. Mhm. ah ba am na ci wàll. ndax tey suñ doon séddale ndar moom wàllam day génn. dëgg la waaw wàllam day génn kooku am na ci droit bu baax. a baax a baax dëgg la Fall dama laa bëgg kaay toog ñu delloo kàddu gi héritage Abdou fàttewuma kenn maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu nag sama